bismillahi irrahmani irahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman muwaayi wa naafi fi madaai saafi bismillahi irrahmani irahim allahumma yaa akramu salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaqi bilxaqi walhaadiyi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari alazim وجناز العمداء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة دائمة وفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسرت إليها أبدا آمين يا رب العالمين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu seetaan mu mel ni yéen a ngi ànd ak seen daayira Mawaahibu Naafi di daayira bi lëkkale mboolem kuréel xasida yi nekk ci biir dëkk bi ak li ko wër tey jii ñu nekk fii fi Touba Mbacké ci mbaarum Daaru Xudus ci bayti eh, di amal bisu xasida di douzième édition di fukkeelu édition bi ak ñaar tey di alxames la 22 août ñu ci ànd ak waa commission culture sëriñ Abdou Ahad Ndiaye jiite ko sëriñ Abdou Ahad Ndiaye ñoo ngi lay siyaar baax waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli di mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare fu waay mën a nekk te di ñu seetaan wala ngi nuyu ñëpp ñëpp di jiital ci nuyoo geeg siyaar bi di sëñ Muntaxa Basiir xalifa général kullu murit di ñaan suñ borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba li mu yéene liggéeyal maamam ju tedd jooje suñu borom kàttanal ko ba mu àggali lépp di nuyu mbokk taalibe yëpp sëñ seex ñu ngi lay seetlawaat siyaar bu baax a baax a baax. di la wax sëñ Blad culture bi ak ana naka ngeen ko waajale ak euh, fan ngeen ci toll ci jamono yi. waaw jërëjëf sëñ Cheikh euh, commission culturelle moom. Euh, fi mu toll nii fi ñu ci toll dina yomb a wax ndax liggéey bi euh, mën nañ ne barki démb ba léegi lañ ko tàmbali wala ba nu jàppee dat ba léegi lu ëpp weer a ngi nii ñu nekk ci liggéey bi ndax xam nga ne liggéey commission culturelle dafa nekk liggéey boo xam ne dafa yaatu maanaam euh, benn bis bi nga xam ne mooy bisu xasida bi rek commission culturelle li mu war a liggéey ëpp na bis bi kon mel na ne lu jiitu weer ñi ngi woon dooroon nañ liggéey bi jëm ci njàngum alxuraan bi ak moom mooy saytu wàllu al njàngu alxuraan mi yëpp ak njàngum xasida mi yëpp moom moo koy saytu kon daal sëñ Cheikh mel na ne eh, bi nu jàppee liggéey beeg léegi lu jiitu weer boobu ba léegi ñu ngi ci durusu xasida yi ak di dajale kaamil alxuraan yi nga xam ne sëriñ daara yi ñu ngi ñu koy dimbale ak seen waa daara di ñu ko jàngal ba tey jii ñu war a dajewaat fii nag ci bis bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne moo ko taxoon a jóg ñu dajewaat ci mbaar mi incha allahu taala ngir fas yéene lépp loo xamante ni bi lu fi ruuse woon na ci alxuraan rek ak xasida ci lu jiitu bis bi ak li nga xam ne moom moo aju ci bis bi lépp ñu ngi ko ñu ngi ci ñu ngi liggéey bu am am solo ndax boo xoolee lal yi nga xam ne moom lañu ci def te eh, ay nit ñu bari nekk ci ñu takkoo takku ñoo xam ne ñëpp seenu liggéey mi ngi aju ci commission culturelle bi rek boo leen xoolee da nga leen seen ci biir mbaar mi saa su nekk ñu nekk ci di jël liggéey bu am am solo ba fépp fu waay nekk dinañ la fekk fa nga toog jox la jukkub xasida wala jox la jukkub alxuraan bu nu noppee dinañ fa dellusiwaat saytu ko ba xam la nga fa jàng ci lim na mu toll ñu noté ko ngir bu ñu dajee jëwri ni man koo teg seen loxo kon liggéey bi moom ñu ngi ci ñu ngi ci doxal bu baax a baax incha allah. sëñ Abdou euh, ñu dellu la laaj euh, ndax maanaam culture bi ci mbooloo mi culture mi ñëpp ci biir dëkk bi leen jógee wala am na ñu jógee ci bitu bitib dëkk bi. ndax ñëpp ci biir dëkk bi lañ jóge wala am na ñu jóge ci biti dëkk bi ndax am ndax mën nañoo xam alxuraan ji ñaata lim ngeen di fas yéenee durus ak comme ni ñu defee ay avis ay jës bu mu bu ndax Euh, man nañu xam bu ci nekk dañ ci sàkk lim buñ ci war a durus wala da ngeen di def suñ durusee rek ba noppi ngeen da doog a dajale lim bi. waaw jërëjëf sëñ Cheikh xam naa commission bi nag mbooleem ñi nga xamante ni bi ñoo ko séq te nekk ci liggéey bi euh, mooy kuréel yi nga xam ne dañoo bokkoon ci biir daayira mooy bu naafa te bokk ci ci ci ci commission yi ñoom ñoo ñoo ñoo lëkkal ñoom lañ lëkkalewaat ba créé ci commission culturelle ñoom ñoo yor wàllu liggéey bi jamono yi ñu toll. Euh, li nga xam ne moom nga laaj ci wàllu alxuraan ji xasida yi loolu moom ëpp ñu ko fenn foo xam ne dañu fa lay yem ndax jàpp nañ ne lu ñu xalaat rek day xaw a day xaw a gàtt ci ñun jàpp nañ ne daal lu ñu xalaat ci lim rek war nañ ko mën a am ci alxuraan war nañ ko mën a xam ci xasida boo gisee li sababu loolu mooy li tax nga xam ne euh, programme nañ ko lu ëpp lu ëpp weer tàmbali di ko jàng moo lay wan ne bu ñu ci noppee incha allah façon nañ ci joxe lim boo xamante ne bii fukki édition yi nga xam ne moo jot a jàll ak benn te tey di fukkeel beeg ñaar incha allah bu fawxuwut yëpp it incha allah benn du ko ci fawxa boobu pas-pas daal lañ ci am fi mu toll nii. jërëjëf sëñ Abdoulaye Ndiaye ñoo ngi lay sant bu baax te di la gërëm. ñuy seq ak eh, ay waxtaan Serigne Khadim Diop Naim di jëwriñ ci daayira Moukhaddamatoul Bichri waaye di jëwriñ ci daayira Mawahibou Nafih bi kon sëñ Khadim lay siyaar. waaleykum salaam wa rahmatulah Serigne Cheikh maa ngi lay fay nuyoo di la naka nga gisee lii nga xam ne mooy fukkeelu édition bi ak ñaar euh, fédération daayira mooy bu naafe ci bisu xasida bii nuy amal ci tàmbalima bi liggéey bi naka nga gisee. waaw Serigne Cheikh euh, gis-gis bi de moom mooy sant Serigne Touba rek sant Serigne Touba ndax yéene ji ca ni nga ko waxee ca njëlbeen ga ba tey ji pas-pas bi lenn rek la woon mooy jubluwaayu liggéeyal Serigne Touba ci xasida gi. ci xasida yi waaye di ko defee ci ak booloo ndax terewul kenn ku nekk yaa ngi doon beero fa nga nekk di ko def muy daara ju ci nekk wala muy kuréel gu nekk te def ga nga ko doon def am na njariñ waaye ñu gis ne euh, aljamaatu raxma mbooloo yërmande la te booloo gi moom mooy lii lii jariñ euh, ñu mu wér nañu it bëgg-bëgg sëriñ bi la taxoon ñu soobu woon ci loolu fexe di dajale kuréel yëpp ñuy fexe ba ñuy mën a dajaloo di àndandoo ganaar bi nga xam ne kenn ku nekk yaa nga ca gox ba nga nekk di def li ngay def ñuy fexe ba ñuy mën a dajaloo di defandoo liggéey boobu loolu itam ndimbal la ci e, bi nga xamee ne ñu ngi ci dajaloo googu ba e, ba aksi noonu lañ ko doon defee ca njëlbeen wi tam ba fii nii tey ñu gis ne loolu lépp it njariñ gese la tawfeex dong moom moo ñu ci fekk ko it loolu dañuy jàpp ne continuité la rek la fi nekkoon mooy moo fi nekk ba tey jii ñu di ko amal saa su nekk mbooloo mi bu bis bi dajaloo di jotee ñu waajal ko ci wàccaay yi nga xam ne moom la gën a matee bu accès ñu àndandoo ko kuréel yëpp àndandoo kenn ku nekk wanee ne bennoo gi ngay wax ak sa morom dëgg la ci teewaay gi ci àndandoo gi lépp di ko firndeel ñu def ko ba mat kenn ku nekk delluwaat ca la nga nekkoon di ko wéyal Serigne Cheikh. Serigne Khadim ndax mën nañoo xam yow ma xam ne jëwriñ nga ci mooy bu naafi jubluwaayu mooy bi naafi ana lan mooy jubluwaayam maanaam lan moo ko tax a jóg dëgg-dëgg ndax mooy bu naa day am ci dajale bisu def bisu xasida rek dajale mbooloo mi rek ñu jàng xasida yenn koo jàng rek daal di yeewee ku dem seen yoon. voilà lan moo tax a jóg Mawahibou Nafih dëgg-dëgg daal ak ban message la sëñ Xaadim di jàllale ci àddina bi seetaan bi ñuy seetaan ñëpp ci Mawahibou Nafih jubluwaayam li ko tax a jóg li nga laaj lu am solo la mooy tableex bi muy jubluwaay bi e, jubluwaay bi moom la ko sosoon moo doon lii rek mooy fexe ba mën a boole suñuy doolee boole suñuy kàttan li ñuy tuddee ni ma la waxee léegi ci njëlbeen gi mooy booloo doon benn ba tax na. daanan jël wenn béy sax di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko bàkkee liggéey bi muy yaa rabbi yaj'alil muridina maha fi xisnikal xasini wa chamlaj maa di di di di di di màndargal ne booloo booloo goog lañ bëgg fexe ba kuréel yi nekk Tuubaa yépp ndax terewul itam lu jiitu loolu di am amoon na yëg-yëgu ne loolu mi ngi yaatu di am ci biir réew mi wala sax ci bitim réew muy wet gu nekk dëkk bu nekk ña fa nekk ña ngay booloo rawatine nag ñun jàngkati xaside yi ñu gis na itam fii ci Touba loolu it amoon na fi muy du ma wax Touba sax ak li ko wër yëpp jàngkat yi benn benn yi wala jàngkat yi aw yi ñoom it amoon nañ genn kuréel goo xam ne mel na ne tur yi ñoo bokk sax maa bu naafeex ñu ngi booloo woon daan am mm, comme lu mel nii bis boo xam ne ñoom ñoo ko jagoo nga xam ne daanaka at mu jot daana ko amal ci ñi ku ñuy wax sëñ Fallou Ndiaye jiite ko kon ñu gis ne kuréel yi rek moom moo desee woon a am lu mel noonu ndax terewul ni ma ko waxee léegi kenn ku nekk yaa ngi woon sa gox di def li nga def la nga war a def ak yéen a ju mat sëkk yéen a ju mat sëkk waaye nag eh, loolu doyut comme wane na ne ñoo bokk lu ñuy def ñoom ñoo bokk pas ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk jubluwaay kon warees naa mën a fexe ba jëmmal loola ba dana def ak yombal am ak jàppandal am ci diggante kenn ku ci nekk ak moroomam ndax lu toll ni mboolem kuréel yi nekk Touba bu fekkee ne séq nañ lu mel nii kon kumpa dootul am ci seen biir kenn ku ci nekk eh, danga xam sa moroom bu baax a baax kuréel gu ci nekk da nga am ak jaxasoo ak sa morom bu baax a baax jëwriñ ju ci nekk da nga mën a xam sa morom bu baax te sëñ Cheikh loolu def na résultat def na résultat xaw ma ba xam ñëpp xamee nañ ko noonu déet waaye njort naa ne lu baree baree baree bare loo xam ne waxtu yu ñu toll tembe mi ngi am ci jëflante diggante kuréel yi mi ngi sosoo ci diggante bis bi ndax lu ko jiitu yaakaar naa nga mën cee tudd juróomi kuréel yoo xamante amul woon amul woon ñi ko njëkk euh, kuréel euh, kuréel li njëkk a dajale ñetti kuréel la gannaaw ñetti kuréel fukki kuréel fukki kuréel yooyu demoon na ba ba kuréel yi tolloon ci jiimu liimu juróom-ñaar fukki kuréel ci bi ñuy def euh, premier édition rek kon loola la ko def tey téerewul kuréel yooyu yëpp kenn ku ci nekk da nga doon wéy di mën a jëflante sa ak sa morom di jaxasoo ci morom ak loo xam ne si ni jëmmi bés bi du ko yëg kon loola la doon jubluwaay ba moom am na am na moom mooy fexe ba kuréel yëpp man a maase booloo doon seen bopp bëggante soppante miinante loolu dong moom moo doon jubluwaay bi te loolu réussiroon nañ ko sëriñ Thiam. jërëjëf sëñ Xaadim sëñ Xaadim ni kon moom ni am na solo lool lool ci leeral gi ak fàttali gi xanaa li ñuy wax rek sëñ Xaadim ci kàddu yu mujj naka lay soññe ci kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi te ba léegi tabeeguñ ci daayira mooy bi nax bi ana la leen sëñ Xaadim di soññe euh, kuréel yooyu ak it ndax euh, yeneen ñi nga xam si dañoo bëgg a dañoo bokkul ci liggéey bi maanaam te te yëguñ liggéey bi lan la leen si xaadim di soññ waaw euh, li may digal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ba tey di ko taxaw itam bu ñu sonn bu ñu tàyyi ci yaatal gi te xam ne moom moo doon ndigal li nga xam ne moom la jotal moom la ñu jotoon ci seen yàllaa ji baare bi nga xam ne ci moom la yàlla dogal liggéey bi tàmbalee ci moom muy nañu ko yaatal fexe ba ñëpp kuréel ñu ko seqal yëpp nga xam ne ci seen tur la wax muy kuréel yi nekk Touba yëpp ñu maase ndoo ko yëg ko. kon loola buñ ca tàyyi mukk ci yaatal gi fexe ba ñi nekk Touba yëpp xam ne lii du mbirum gox wala mbirum niñ koy tuddee Daaru Xudoos jëmmi sababu mbaar mii nga xam ne moom lañ koy defee muy mbaaru Daaru Xudoos la ma ciy leeral tuuti mooy ak gën a jàppandal lees ci jublu waaye mook lañuy ñuy defee ca jumaay Tuubaa yi ñooyam ndax daa doon loo xam ne ñëpp ko bokk waa Touba gépp ko seq kuréel gu nekk Touba bi ñu mujjee ci sañ am sa ci ay jataay noon la ko soññee woon xam ne kuréel gu nekk Touba na nga def yitte nga bokk ci loole itam moom la ñëpp jàpp it ndax ku ku ci bokkul ak xëy na maanaam message bi dafa desee leeral lii ci moom dafa desee leeral lii ci ñoom ñun euh, euh, ak suñu waa daara it loola lañ ci xamoon ca njëlbeen gi it ci xamoon ba tey it moo ñu ci bàyyi. ñoo ngi fii ci Touba Mbacke Daarul Xudoos ci mbaarum mi ànd ak daa daaira Mawaahibu Naafi di daaira bi lëkkale mboolem kuréelu xasida yi nekk ci biir dëkk bi ak ko wër ak mboolem ñuy jàng xasida ci bépp fànn. ñuy amal bisu xasida tey jii di alxames le 22 août di douzième édition bi maanaam fukkeelu wax émission bi ak ñaar fukkeelu édition bi ak ñaar ñu ci ànd ak sun mbokk taalibe di jëwriñ ci liggéey bi di sëñ Mbacke Sarr walam ci liggéey bi di euh, mu nekk ci commission accueil sëñ Mbacke ñu ngi lay nuyu. waaw suñu Cheikh Diba ñoo ngi lay fay te di ziar mbokk taalibe yëpp tey rafetlu jataay bi bu baax a baax. Ah, ndax lii rek mooy tànk yi nga xamante ne tànk buñ la ci fekkee xam ne yaa ngi dox jëm ci lu baax kon ñu ngi gën a sant yàlla bu baax a baax a baax bi mu nu boolee ci eh, eh, bis yu mel nii ah, bis ñun nag ñu yor wàllu accueil bi accueil bi nag niñ ko amale mooy comme eh, fépp foo xamante ne kilifa war na fa dalloo ak fu mu war a xéewloo balaa balaa balaa balaa muy dugg si fàggu nañ ko ba nga xamante ne daal lépp defar nañ ko ba nga xam lépp jaar na ci yoon bunt ah, buntu eh, fenn fu nekk teg nañ fa ndaw loo xamante ne ah, képp koo xamante ne ñëw nga dana la jox mbuus nga dugg say dàll ci biir ah, jox la foo toog jox lay xasida nga nga nga wéyal liggéey bi kon foofu lañ ci tollagun nii nii nii. sëñ Mbacke ñoo lay dellu di la ziaraat bu wax di la jaajëfal ci leeral gi am na solo lool sëñ Mbacke ndax eh, mën nañoo xam ndax yi eh, bi ci jamono ji ndax mi ngi recevoir ay délégation yoo xam si ci. biir dëkk bi leen jóge wala ci biir am na ñuy ci biir dëkk bi. waaw sëñ Cheikh comme li wax euh, am na ñoo xamante ne jot nañoo ñëwagul waaw ku mel ne sëñ euh, Moustapha Mahamadan sax jot naa ñëw ci suba waaye dafa génnaat léegi xëy na ci kanam dana ñëwaat. am na fi it ñoo xamante ne jóge nañ euh, fu mel ne Pire am na foo xam ne mi ngi jóge dakaar ñoo ñëpp yu am na ci ñu jotagu na ñëw waaye xam naa xat-xat yi ci yoon wi ak yooyu. mooy tax ñi nga xamante ne jóge nañ ci régions yi xañ na yegg seeguñ waaye ñoo yi ñëw yëpp it euh, fàggul nañ leen barab boo xam ne bu ñëwee euh, danañ fa mën a dal ba xéewlu doog a ñëw ci mbaar mi euh, wéyal liggéey bi incha allahu rabbi. waaw kala sëñ Mbacke ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax comme ak commission ak yi ngeen nekka naka ngeen di def ak ñenn ñi nga xam si dañuy ñëw te duñu xam ci liggéey bi dëgg-dëgg yi nu mu demee ak dañuy doog a ñëw. Ah, rawatina ñu nekk ay tout tànk wala ñu ñëw te xamuñu barab bi dëgg-dëgg laaj ñooñu naka ngeen faggoo ci dalal leen. waaw ñu mel noonu it am na ci bëri na ci ñoo xamante ne eh, am na ñu ñu fa teg ñoo xamante ne kenn ku nekk bu fañ lay teg danañ la wax eh, dëgg-dëgg sab liggéey la nga war a doxal. Eh, mu mel ne lu mel noonu it fàgg nañ ko ba nga xamante ne képp koo xamante ne dangaa ñëw ngir laaj am na ñu la ñu la tontu ku ñëwit ngir laaj barab boo xamante ne fa nga jëm. Euh, am na ñoo xamante ne danañ la yóbbu ba ci barab booba mooy lu mel ne ñi nga xamante ne ñooy secrétariat ñi nga xam ne mooy jàppukaay yi fi nga xamante ne mooy yeeslu yees fi ñuy yeesloo yooyu yëpp fu ci nekk euh, wut nañ fi ay ndaw yoo xamante ne euh, ñu ngi taxaw pour xaar ñooñu nga xamante ne loolu mooy seen yitte. mu mel nañ niñ jaare ci mboolem commission yëpp noonu la ñu doxee ba agsi ci commission bi nga xam ne mooy communication dafay goo ko sëñ maam Thierno Backe ak sëriñ Fallou Diaw may jox sëñ maam Thierno Bàcc li mu leeral ñu tolluwaayu communication bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokki jullit yi mbokki talibé yi nga xam ne ñu ngi seetaan te duñu déglu ah, ñu ngi leen di nuyu bu baax da leen sant bu baax di leen gërëm ci seetaan gi ngeen ñu seetaan ak yittewoo gi ngeen yittewoo ah, xasida ah, mu mel nag sëñ Cheikh li nga ma laajte dinaa ci sa ndax yàlla dogal na damaa topp ci sa ginnaaw nga jiite ma ci euh, communication yàlla ko na communication bi bis bi jubee ba ba nga ni ñu ngi ciy dox ay jéego fi ñu njëkk nag weesu euh, ñu ngi njëkk ci sunu jawrin sunu kilifa muy euh, sëriñ Mountakha Bassir yal na yàlla guddal fan ba tawér ay cëram waaye ba loolu jàllee it euh, dem nañ ci ku mel ne sëriñ sëriñ Amsadou jaali batul maraaxib moom itam dem nañ ci sëriñ Moussa sëriñ Mouhamadan ak mbooleem kilifa yi nga xamante ni dañoo féete Touba te nekk fi te doon te am baat ci te am kàddu ci yoon ñooñu yëpp yàlla dogal na bi nga xamante ni liggéey bi jub si jaaraan ci ñoom ñëpp ba topp mooy daara Hizbut lool ci yoonu murid ñoom itam leen ko mboolem foo xamante ni it euh, ay mbedd yu mag la wala muy fu kilifa war teew wala fu mbooloo war teew def nañ fa ay tara ngir yëgal nit ñi bisub euh, ah, bisub daayira moo wax bu naa fi euh, mi ngi jub si loolu lépp yàlla dogal na communication def na liggéey bu mag boobu ginnaaw ba loolu jàllee bi nga xamante ni yàlla dogal na dem nañ ba ñu suba la def nañ ab karawaan bu mag boo xamante ni nii dañoo ko ànd ak waa communication Euh, jël ay oto yu am solo wax wax dëgg yàlla euh, wan nit ñi génn ci mbedd mi xam na ni nit ñi bis bu xasida bu Touba mi ngi jub si kon loolu lépp suñ euh, xam ne dañoo xam ne communication la te communication li ñuy wax rek bis mënta jag te looloo looloo taxoon bi mu jubee ñun ñu def suñ kéem lay kattan di ci jaayante waa communication di jaayante wi ñekk it dëgg yàlla waa waa daayira bi wi ñekk di jël seen alal bu baax baax a baax baax kon day mel ñun tey li ñu am ci communication dafa kawe suñ njortu mu mel mu mel nag euh, lii ak euh, ab commencement la rek am nañ am nañ njortu ni rafet nañ njortu ni euh, nii ñu ko commencé bu yàlla bu ñu yàlla defalee jàmm rek wax dëgg yàlla dinañ dem ba mboolem fu bisub xasida yi àgg ci ci ci yoonu murit bisub xasida bu waa dina fa àgg ndax liggéey bi dafa doon liggéey boo xamante ni sëriñ bu mag bi moo ko ñaanoon ñoo ko ñaanoon borom ba mu nangul ko ko comme nag liggéey bu ñu nangul ba pare ma dama ma ni war naa mën a doon lu yomb loo xamante ni nii lu ma maa dox nag doon loo xamante ni nii maanaam kenn ku ne dafay war a jàpp ni da war a yor dara ci sa poos wala da ngaa war a yor melokaan woo xamante ni dañ laa war a mën a financé nga door a def ndax sëñ bi mooy financé boppam buñ jàpp ne ñun suñ financement bi ñun ñoo ko yor financement bi euh, financement bi sëñ bu mag bi la képp koo xamante ni jóg nga ngir liggéeyal Serigne Touba jóg nga ngir ci xës da yiis suñ euh, bu mag bi nga xamante moom moo liggéeyal xës da bi bañ nangu ko bañ nangul ko ko mu ko bind duppee ko jaalibatul maraaxib taabal ko ci ak géej mu dem ba nga xam ne yàlla dogal na jotaan na xasida gu noonu téye ko ci loxo mu wow kon kon loolu kon xam ne lii liggéey bu nangu la kon ñun doonu ci dara li ñu ci war daal mooy moom dafa ñëwoon yeesal yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñun ñi nga xam ne ay murid lañ nañ fexe ba mbooleem mbooleem nit ñu xonq nit ñuy wax ñëpp sopp yoon wi bëgg yoon wi xemem yoon wi nak kenn ku ne daal jàpp ni man damay wax ni sax communication wër na yem ñun suñ liggéey bi damaa jàpp ne képp boo xam ne ne nga asam doon fi communication ci Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa baraka suñu Cheikh ñu yemal foofu suñu jërëjëf yi am na solo trop kon ñoo ngi lay jaajëfal ñuy ànd ak ci kàddu gi suñu mbokkum taalibe Serigne Abdoul Ahane Ndiaye jiite sécurité bi sëñ Ablaat ñëw nañu te di la ziar te di leen wax fan ngeen toll ci wàllu sécurité bi ak wàccaay ndax lépp yemb na auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi mbokk julli mbokk taalibe yi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di la sant ñu ngi siyaar mbokk taalibe yi nga xam ne ñooy teew liggéey bi ñëpp kenn ku nekk ngi lay siyaar bu baax a baax di la jox sa mu mel ni ñun ñoo nekk ci boppu commission sécurité mu mel ni comme bi ñu commencé bis boo léegi na li nga xam si moom la war def lépp li nga xam si mooy lettre yi nga xam si moo dem ci euh, béréb yi nga xam si ni moom la ñu tawoo yëpp dem na fa lu mel ni dem nañ ci police dem euh, sapeur dem gendarmerie ak yeneen bokk taalib yi nga xam si ni soxla na leen yëpp ñu war ñoo jàppale wax dëgg yàlla euh, mu mel ni bindaay police itam li nga xam si moom lañ soxloon ci ñoom jox nañu ko biñ moo ci gendarmerie itam noonu biñ demoo sapeur itam noonu kon mu mel ni euh, biñ dëgmale bis bi ba léegi daal ñu ngi ci mag sama bokk taalib yi nga xam si ni ñun Matlaboul Fawzeyni ak waa Nour daal yi ñoo ko seq dëkk quartier bu Bamba ñoo seq commission sécurité bi biñ dëgmale bis bi ba léegi ñu ngi def ay waxtaan booba léegi ba fi ñu toll nii tey ci bis bi ñu nga àndoon ñun ñëpp di euh, di liggéey ci bis bi waaw ñoo xamee ko noonu ñoo xam ne ñun mbokk taalibe yëpp daal ñu ngi ci biir bis bi di liggéey ñenn ñi ci bunt yi taxaw ñenn ñi ñu ngi ci dalwaay yi ñeneen ñi ñu ngi taxaw ci biir di saytu mbooloo mi ñu ñu gisee ko noonu ko kon mu mel ni sëñ Abdou Lahad euh, bis bu mel nii dafa mel ni bu mbooloo mi daje ku ko waajal waajal ci wàllu sécurité bi ndax sécurité bi dafa yam ci yéen rek waaye wala àgg na ci geneen fànn lu mel ni police wala gendarmerie wala ci yeneen xeetu sécurité yi ndax waajal ngeen ko ci yooyu bu baax. bis mel ni boo ko dee waajal dangay soxla ñu mel noonu mu mel ni euh, biñ koy waaj demoon noonu ci gendarmerie comme ni ma ko waxee woon ci cadre yu njëkk yi demoon nañ sapeur dem ci euh, dem police ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jox nañ sa leetar wax dëgg yàlla bareel yi gis tam ñoom ñoo ñu ko jox ba tey itam ñoo ngi sàggu seen tawaay waaye euh, ba léegi egg waaye nag du tee jàpp nañ ci liggéey bi ndax euh, lépp loo xam ne soxla nañ ko fa bu ñu demee dañu koy jox waaw noonu daal lañ ko euh, lañ ko doxalee suñu diggante ñoom kenn ku ci nekk dem nañ ci moom wax ko euh, bind ko leetar liñ soxla ci moom dem nañ fa jox ñu ko waaw loolu daal mooy liggéey bi. kon sëñ Abdou Lahad ba tey mu mel ni maanaam bés bu mel ni rawatina ci dëkk bi di Touba nga xam ne ku nekk fi ñëw am na ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ ak ay ñoo xam ne ay gone yoo xamul dara lañ. ndax ñoo ñi ngeen di teg ci bunt bi ñu taxaw fi euh, teg ngeen leen ci yoon woo xam ne si képp ku ñëw ak koo man di doon moo xam kilifa la nga nekk mag wala nga nekk ndaw donte ne xale bu ndaw nga dina am nu ñuy communiquer ak yow ci nu ñuy leen ak yow ci geneen fànn. bu nekk dañuy xool euh, ka méngoog béréb boobu ñu teg ko foofa bu dee ci bunt yi gis nañ ay euh, ñoo xam si ni ñoom méngoog bunt ba ñu teg leen fa bu fekkante ne am nañ benn jaxasoo kenn lenn loo xam ne jaaxal na leen. dañuy woo jëwriñ jëlee fa teg mu ñëw lijjanti loolu wax dëgg yàlla gone yi si ñoom ñooy àndandoo di liggéey bu dee ci bérébu kilifa yi dañuy seet ñu yóbbu ko fa bu dee ci bérébu euh, soxna ñu seet koo xam si ni méngoo naag ñoom yóbbu ñu yóbbu ko fa bu dee ci butti xam ne moo dugg bee génn bee tam noonu bu dee ci wàllu euh, fa ñuy jàngee dañuy seet ñoo xam si ni méngoo na nag foofa ñu yóbbu leen fa waaye maanaam euh, taxawaay bi rek fi nekk waaye daanaka taalibe moom fekk ñu yer seen bopp ba pare amatul eh, yaru nañ yaru goo xam si daanaka naqari naqari wu ñoo jëflanteel ndax bu fekkantoon ni naqari nañu jëflanteel kon ñun ñi nga xam si ñooy taxaw ci bopp sécurité duñ duñ ci man duñ ci man loolu ndax eh, wax dëgg yàlla tuuti nañ waane waaye daf fekk ni eh, taalibi Sëñ Tuubaa moom daanaka nga jubanti ci loo xam si ni mooy dëgg sëñ bi day yomb ci ñoom day yomb ci ñoom moo tax daanaka liggéey bi lépp moom wax dëgg yàlla amuñu ci benn jafe-jafe ñu nekk ci buntu yeeg ñu nekk ci waañ waag ñu nekk ci biir gamaat bi ñëpp kenn amagut ci jafe-jafe waaw loolu nag. jërëjëf sëñ Abdou Lahad kon mu mel ni ba tey bis bu mel nii dafa mel ni euh, ñenn ñi sant ñeneen sant daanaka dañ cee poroxandeeloo ñenn ñi nga xam dañoo xaw a jubadikoo jubadeeg yooyu dañuy poroxandeeloo ci bis bu mel nii euh, di fexe yóbbu yëfi jàmbur ak yooyu ndax it fànn googu waajal ngeen ko bu baax a baax. waaw mu mel ni loolu mu bañ nañ ko ndax bu euh, buñ taxawee ci buntu bi ñu ngi xool comportement nit ki bu fekkante xaw nañ la réceptionné tuuti dana topp ci yow di la xool ba xam bu fekkante jumtuwaay yi nga xam si nit ñi ngi ko fi indi loolu bu fekkante indi ko teg ko ci comme dana ko saytu ba euh, ba nga jotaat ci waaye bu fekkante da nga ko indi rek teg ci mbedd ma te joxoo ko kenn kooku moom sécurité du ci mën a euh, def dara waaye nag bu dee ki nga xam si ñëw na ak comportement boo xam si ni bokkut ak comportement bi nga xam si moom lañ soxla dana ñëw wax ak yow bu fekkente ni dégg nga dégg nga li la wax ñu doxali ci noonu bu fekkee déggoo ko nag ñu dem ci ñi nga xam si ñoo ñu fi teg wax leen ko ndax ñu itam dafa am koo xam si mooy jiite mooy jëwriñ ji jëwriñ ji bu fekkente ne am na leen loo xam si ni jaaxal nañu ci moom lañuy dem waaye loolu moom gisaguñ ko fi gisaguñ ko fi mu toll nii ba jamono yi toll moom gisaguñ ko fi waaw bila xalaai laka sukuri inda duyuri ya sal xusuri بلا جلاء يا من كساني يا من سخاني يا من أماني عن الخلاء mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki seetaan ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare mu mel ni yéen a ngi ànd ak ñun fii ci mbaarum Daaru Xudus di gis ak suñu mbokk Serigne Mbacké Seye Serigne Mbacké fan ngeen toll ci liggéey bi waaw comme suñu Cheikh ni ko waxee rek muy commission muy benn ci commission yi di commission waa finance muy commission waa finance euh, comme ni nga wax ne nañ ko waajalee yow muy wàccaa yu am solo xam ne bi bi bi bis bi weesoo wala jàll ba ndajewaatee ba fal bureau dajee nañu waxtaan xool ñun jàpp ne bu ñu ko defee liggéey bi dana gën a mucc ayib dana gën a dox mu ñuy fexe ba am ay membre yoo xam si jàpp na ne dina mën a ànd ak ñoom liggéey bi bis bu set ñuy coordonné ndax ku xam ne ku xam liggéey bu toll nii xam li koy jagal bokk na ci wàllum addiya ni ñu fexe ba def addiya jëpp nu koy dajalee ak euh, coordination yu mat yoo xam si képp koo xam si bokk nga si bis bi sa addiya war a tàbbi si bis bi fexe ba dinañ la ko yëgal dinañ la woo yëgal la ko wax la ni muy deme sek weer wu nekk euh, fukki fan ak juróom yu nekk dinañ coordonné woo ñëpp. bu ko defee eh, ñi bokk ci bis bi ñëpp ñu woo leen laaj leen fu ñu toll ci adee ji leen ak am na ay membre eh, eh, membre yoo xam si barkeen lay doon ñu ñëpp daan nañ leen soññu laaj leen fu ñu toll ci adee yooyu yëpp loolu lu ci nekk nag wax dëgg yàlla ni ni ko commission yëpp defee waa finance defee nañ ko noonu wax dëgg yàlla liggéey bu bu xaw a doy waar la waaye soññe nañ ci bu baax a baax a baax coordination yi ñu ngi ciy sant bu baax gars yi wax dëgg yàlla gars yi loolu ci liggéey seen i ñàq dem nañ ci te ñu ngi ciy gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax. ndax mën nañoo xam li ngeen di dépensé ci bis bii nan lay toll ak ndax li ngeen ciy dépensé kuréel yi rek ñoom ñoo koy joxe wala am na loo xam ne day génne feneen. waaw jërëjëf sëñ Cheikh ndax euh, kuréel yi rek ñoo koy dépassé ndax wala am na leneen loo xam si day génne feneen loolu laaj boo xam si den ci sawar a lool ku nekk xam na bis bu toll nii ñu ne waa kuréel yi xes da ñoo koy taxaw wax dëgg yàlla euh, doon na jaadu lool saa su ne bu dee sax am na ñeneen ci def am na ñu ci def kuréel yi seenub liggéey ñoo ci war a gën a ëpp. waaye loola ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax xaw naa des tuuti waaye ñu ngi ciy liggéey bu baax jàpp na ne li li li ciy suñu bala ñu seen noppi incha allah bëgg nañ daal bis bi saa su ñëwetee bu doon cent bu doon cent pour la quatre-vingt-dix yëpp kuréel ñoo koy def incha allahu taala am na nag ay membres yoo xam si ñu ngi ci doxee wax dëgg yàlla ñooñu jàmbaar lool ba tey kuréel yi sax mënuñu denc boo dee xool sax moom fi mu euh, dafa équilibre ñoom it ñi ngi ñi ngi def liñ man kuréel yi def liñ man loolu it ak sant la wax dëgg yàlla am na membre it nekku ne kuréel yi rek ñoo ko seq bis bi am na ay membre individuel yoo xam ne par kenn ku bëgg a bokk comme ni ko gars yu baaxee waxee boo dikkee dina la jaay carte membre par kenn bu ko defee nga ngay yoxe say cotisation yooyu yëpp loolu yëpp am na ci bis bi am na ay membres individuels am na ñoo xam ne sax binduwuñ ci dara waaye ñu ngi barkeelu ñu ngi joxe seen addiya ci fànn gépp loolu am na ci bés bi wax dëgg yàlla. mooy ndax fii liggéey bi tollagun ndax jamono bi amagun benn sooxe amagun na ci wàllu finance ci wàllu lu manqué la wala am te amagul wala. waaw mooy ku nekk xam na ne bis boo koy taxawal li doon jaaru gën a gën a gën a gën a di gën a jàpp liggéey bi mooy bala ngay ak sa bis ba. la ngay soxlawoo ci addee yëpp dajaloo loolu jafe-jafe la ci liggéey bi muy nii doon nan ñi ngi sàkku daal ci mbooloo mi saa suñ demetee ba jub bis bi addee ji bu lépp mënut a dajaloo li ci ëpp dajaloo waaye dañuy dem ne dañ am na ñoo xam ci dañu bàyyi ba agsi si bis bi bu ñuy ñëw si bis bi la seen addee yi doog a ñëw loolu ku nekk xam na ne jafe-jafe la ci liggéey bi loolu ñi ci bàyyi wala xel mbokki taalibe yëpp ba bis bi saa su saa jub seetee rek wala saa saa suñu wax nee bis bi jàpp nañ ko dat sàngam li ëpp ci addiya yi dajaloo loolu ñu ngi koy soññ mbooloo mépp rek loolu wax dëgg yàlla jafe-jafe la ci liggéey bi ñu ngi cub bu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziar bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom lañ bokk mooy bisu xasaayit bu Touba euh, ca kuréel yi nga xam ne ñoo féete Touba yëpp àndandoo di ko def muy bis boo xam ne bis bu am solo la ci yoon wi di bis bu am solo ci dëkk bi di bis bu am solo tamit ci kuréel yi ñu ne nag ñu féete fii ci bureau bi féete ci social bi nga xam ne ñoom ñooy taxaw liggéey social ci bisu xasida bi. waaw ah, kon sëriñ Cheikh mu mel ni ñuy laaj euh, social ana lan mooy wàllam ci biir liggéey bi. mbooloo yu mel nii li ci ëpp solo social lay doon ndax sëriñ bi day bëgg murid yëpp suñ àndee bennoo ak in di kenn ko di nemmi ko sa ca loolu liggéey social la ci liggéey bi bis bi nag dafa nekk bis boo xam ne day bis bu mag ndax loo xam ne dañ naan kuréelu Touba yi ñoo koy def ak li ko wër ànd koo kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ñëpp day mel ne duñ ci tudd kenn waaye suñu waxee kilifa yëpp rek dañuy yóbbaale ñëpp ndax kilifa yëpp lañ koy àndal social nag taxawaayam ci bis bi mooy li ci ëpp solo ci li mu war a def ci liggéey bi muy fexe ba képp koo xam ne yaa ngi ci liggéey bi ci bis ci ci ci dëkk bi ak ku nekku sax ci dëkk bi su bis bi jubsee mu def yitte ànd koog bureau bi suñ tuddee bureau bi tudd sëñ Cheikh jang mi jëwriñ ji ñu fexe ba kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp kenn ku ne ñu dem fa waxtaan ak yow ci bis bi fàttali la ko leeralaatal la ko ba nga xam ne bis bi. bisub sëriñ bi la ñoom loolu lañ ëpp lu ñu dox ci liggéey bi ndax euh, euh, dëkk bi ku ne xam ne yaatu na yaatu koo xam ne ngir nga mën fee def dara ñëpp yëgandoo ko du yomb waaye dañuy def seen kéemtalaay kàttan ba kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp rek suñ mënta dem fépp tamit li ci ëpp ci dëkk bi danañ fa dem euh, yëgal leen bis bi wax leen tamit ne leen bis bi bisu xasida bu Tuubaa la ca sëriñ bi rek lañ koy defal ak xasida yi kon social daal taxawaay boobu la am ci bisu xasida bi nga xam ne biñ ko sosee ba léegi ci taxawaay boobu la ci am ci ci noonu la ci doxee ba fi ñu toll nii sëñ Cheikh. jërëjëf sëñ Cheikh Fall. بزي الدوائي بزي العبادة بزي الهفادة بخرق حادة للأولياء بزي النوالي ليس الختال مرد رجالي الأسقياء بذي ثوابا ذوي الإجابة جال الكهابة tey jii di alxames 22 amal fukkeelu édition ak ñaar ñu ci ànd ak euh, sëriñ Alhaji Cissé mi nga xam ne moo jiite wàllu collation maanaam lépp luy xeetu naan gu dagan ci bis bi ci ndox ak boisson ak yu sëñ Alhaji Seye Yoro kon sëñ Alhaji Seye ñoo ngi lay nuyu te di la wax fu ngeen toll ci wàccuwaay googu. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di jiiti siyaar bi suñu Muntaxa ak mbooloo mi nga xam si ni ñoom lañ àndal liggéey bi di rafetlu jataay bu baax a baax tey it di wax ne liggéey bi moom niñ ci nekkee mooy li ñu sant la rek ñu di ay ndaw ànd koog jëwriñ yi nga xam si ni ñoo jiite liggéey bi muy lépp loo xam si ni luñ fii naan la lu jëm ci lu sedd ah, lépp loo xam si ni yëg si suñ loxo rek danañ ko saytu jaar la ko ci ñi nga xam si ni ñoo ko war a mën a yor te saytu ko ba mu mucc ayib ñu fexe ba mbokki taalibe yi nga xam si ni ñoo ñëw ci bis bi ñu leen ciy teral loolu nag dañ cee ànd ak mbooloo mi xam si ni ñooy Safinatoul Amaan Touba Guy Mbind di mbooloom kuréel yi nga xam si ni ñu ngi ci biir liggéey bi loolu daal li nga xam si ni moom moom moom ci lañ nekk ci loolu daal ci lañ nekk sëñ seex ci loolu la ñuy góorgóorlu bu baax a baax. kon sëñ Alaaji ba tey mu ay jàppukaay ak ndox moo ñuy jàpp ak ay wana yoo xam ne képp ko bëgg a waaj man caa waaje ci ndox ak lépp lu ko ak képp koo xam si teewoo nga ndox mu naan rek ci jamono bu nekk rek saa su koy teewoo rek ndax loolu waaja nañ ko ba lépp jàppandi na. waaw loolu dañ koy dugalaat ci biir comité d'organisation bi mooy ñi nga xam si ni ñooy saytu liggéey bi dañoo wut ay mbooloo mbooloo mu ci nekk am na lu leen sant mboolo mi nga xam si ñooy yor wàllum set ki ñoom ñooy saytu wanag yi ak ak li ko wër. ñun nag dañoo sant sant ndox mi ak ñi nga xam si ne buñ bëggee jàpp buñ demee ci bërëb yi ñuy suturloo ba génn buñ noppee dañuy ñëw ci ñi nga xam si ni ñoo yor jàppukaay yi fekk nañ ñoom it saytu nañ foofu ba mu ba mucc ayib daal. bu dee ci wàllum ndox mi it fépp koo xam si ne ab commission nga fa euh, saabuñ soxlaa lépp luñ soxlaa naan dañuy jokkoo ak ñi nga xam si ne rek ñoo nekk ci commission ndox mi loolu daal mooy mooy mooy ci liñ nekk rek di fexe ba bis bi euh, jaar yoon lool te daje ci ngërëmu Sëñ Tuubaa daal. jërëjëf sëñ Alaaji kon laaj bi li mujj laaj xanaa mboolem ñi nga xam si dañoo dëkkee ci biir Touba ak li ko war te ay julli ak taalibe naka nga leen di soññi ci lan la ñu war a mën a jàppe ci bis bi di bis xasida bu Touba. waaw loolu de sëñ Cheikh daanaka mën nañ ne dañ la ciy jaajëfal yaa mbooloo mi nga xam si ni yéen a ngi ci muy mi euh, communication bi ñoom it ñu def euh, taxawaay yu am solo xaj na dañuy euh, sàkkuwaat ci mbooloo yi rek képp koo xam si ni dégg nga ko nga xam ne liggéey Sëñ a jóg nga gën cee def yitte te it ñi nga xam si ni moom lañ ko àndal muy ku mel ne sëñ Hamsatu ak sëñ Moustapha ñoom it ñu ngi ciy def taxawaay bu am solo ñu xam ne liggéey bi niñ ko baaxoo di waxee yemul ci bisub xasida bi rek bii waaye fépp ne bis jàng alquran yi ñu daan def yooyu yëpp boo gisee kër sëñ Abdoulaat taxawaay ba na muy am mawaay bu naa fi mën nañ ne la ci ëpp ñoo koy taxawee loolu nag daa dellusiwaat ci biir soññee bi rek ñoo xam ne kon liggéey bi mi ngi ci loxoy kuréelkat yi kon li ci ëpp solo mooy ñu gën cee dolliwaat yitte ji rek yitte ji daal jàpp naa buñ ko dollee rek incha allah lépp dana mucc ayib daal sëñ si jërëjëf kon mu mel ni ñu déggee ni mu ko waxee ak ni mu ko soññee rek sëñ Alaaji mooy lépp luy wàllu naan gu dagan ci biis taxawaayu bisub xasida dong taxu koo jóg waaye day la fexe ba lëkkale mboolem yëngu ci xasida ci biir dëkk bi ba saa su bi santaane lu jëm ci alxuraan wala xasida daayira maay bu nafe mën a dajale mbooloom ñu daal cee taxaw ba am ni ko sëriñ ba bëggee moo xam njàngum alxuraan mu sëñ bi digal la ñu féete ko ci kër sëñ Ablaat ba ci penku guddi ajjuma yi sëñ Amsatu def daayira maay bu nafe ànd ko moom kon sëñ Alaaji يا سماء زبي بنائي أنت سروري بلا خروري زبي بروري نوير فنائي فيك أقول dañuy ànd ak yéen ba tey ci daayira mooy bu Naafi ci fukkeelu édition bi ak ñaar ci bisu xasida bu Touba daayira mooy bu Naafi bi dëkk la mboolem kuréel xasida yi nekk ci dëkk bi ak li ko war di ko taxawal ci at mu jot fii ci mbaarum Daaru Xudoos mu mel ni comme niñ leen demale ci yeneen commission yi rek noonu lañ doxantoo ba ak lépp lu ci aju si sëñ Xaadim ko kon dañuy jox sëñ Xaadim mu leeral euh, ci commission bi ci euh, liggéey bi ñu ko dénk ak fan la ci toll ci jamono yi. Serigne Cheikh ñoo ngi lay nuyu baax di la siyaara nga xam ne yaa jiite communication bi ci biir daara mooy bu naafeex bi nga xam ne moo boole mboolem kuréel yi nekk ci biir Touba ak li ko wër. Euh, liggéey bi nga xam ne nag yàlla dogal na ñun ñu jiite ko muy commission Ahlu kafe mu doon liggéey boo xam ne ay at ngi nii ñu nekk ci di ci liggéey Sëñ waaye ren ji nag dafa mel ne ak jàppandal da gën a am lool ndax margale yàlla dogal na ci guddi gi la tàmbalee taw ba waxtu yi waaye teewut ndaw ñoo xam ne dañoo dogu ànd liggéeyal Sëñ Touba takku ci suba ñenn ñi daanaka démb bi ñu fi jógee deux heures du matin jot na biñ xëyaatee huit fekk na fi ñëpp nga xam ne loolu ab pas-pas dëgg la bu rëy rëy rëy moo tax liggéey bi dara tërde wu ci ñu nga xam ne ñoo jógee sax ci gox yu fasantikoo yi biñ ñëwee fekk nañ euh, xéewal yi noppi muy café geeg lu ci aju lépp ñu man leen cee teral ba ñoom ñëpp ñu bëgg euh, noonu lañ ko doxantoo ba heure bi ñu nga xam ne ñu ngi toll ci waxtu tisbaar amugu dara daal loo xam ne gis nañ ko ci léggéey bi lu ci tardé ba waxtu yi ñuy waxe yéen fi ne sax dañoo pause kafe gi ngir doxal ataaya ji ngir maanaam xam ne ñi toll ci séddale xéewal yi te waxtu wuñ euh, séddalee xéewal yi ba noppi dañoo war a jublu ci naan euh, warga bi kon euh, loolu moo waral ñu pause kafe gi jublu ci ataaya ji kon daal suñ seex tolluwaay liggéey bi moom mooy gën a santaat suñ Tuubaa rek te xam ne liggéey bi suñ Tuubaa moom nii la amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la te feeñ na bu baax nag ci liggéey bi ndax euh, gis nañ bu baax a baax ci liggéey bi ay avancement yu bëree bëri ay mbokk taalibe yoo xam ne liggéey bi jaral na leen ñu jaayante ñëw joxe seen alal ñi joxe seen jëmm nekk ci euh, taw beeg yëpp ñu ñu muñ ko loolu itam ñuy sant waa ma Mafatihul Bichri bu soppee Cheikh Mamadou Fall bi nga xam ne ñoom luñ bokkal liggéey bi ñuy ay membres yoo xam ne yu neex a liggéeyal loolu lañ ndax doo ci digal kenn dara mu am lenn lum la ci eh, tegtal loolu rek dalay sant gërëm la ci. kon ñoo ngi sant ba tey suñ jëwrin Serigne bay Serigne mi nga xam ne yàlla dogal na liggéey bi ba mu tàmbalee ba léegi ñun ñoo koy ànd. moom itam mu doon koo xam ne luñ ci xamul rek dañ ko koy laaj ndax moo ciy suñu mag te gën ñu ci xam lu bëree bari waaye moom itam wax dëgg yàlla ku ñàkk ñaan la lu mu ci xam lu nekk rek dañ ciy conseil diñ ci xelal diñ ci wax loo xam ne day tax liggéey bi gën a jëm kanam ba ci ataaya yi sax fi ne bu jotee mooy ñëw ataaya ko ba normal ngir rek bañ ci am benn rëq-rëq kon daal suñu seex euh, ci gàttal bu amul benn question boobu bëgg laaj foofu la liggéey bi toll ci jamono bi ñu toll jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim kon noo lay sant rek di gërëm ci tolluwaayu liggéey boobu nga xam ne leeral nga ko bu baax a baax mu jëm ci commission bi ñu leen dénk nga feggoo ci yàgg bàyyi sëriñ Sylla mi muy ahlu café nga xam ne at yi bari bari a ngi ko yor di ko doxal ci berndeel nit ñi ci xeetu café ak ataay yu nuru kon ñoo lay jaajëfal sëñ Xaadim te di la sant comme niñ leen demale ci mboolem commission yi rek ci lañ leen ñëwale tey ji ci commission bi nga xam mooy restauration te sëriñ Modou ci wàccaay ak jamono yi fi ngeen ci toll. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Cheikh ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ak mbokk tale bi ngeen àndal maanaam ngir jël si image yi nga xam ne maanaam moo waral liggéey bi te ngeen ne ci biir. waaw bañ xëyee suba de ba léegi ñu ci liggéey bi li ci commencé mooy biñ commencé daara yi nga xam ne ñoo ubbi liggéey bi ci daara alxuraan yi ak kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu moyen naafi bi lëkkale kuréeli xasida yi ñoom ñoo ubbi bis bi ak daara alxuraan ji waaye ñoom bañ ñëwee tamit. li ko waa organisation di defee maam day am berne yoo xam ne saa bu nekk dañ koy defal ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci liggéey bi ci alxuraan jeeg xasida yi bi ñu xëyee ñi nga xam ne ñooy kuréelu général bi nga ne moo ubbi njàng mi ak daara alxuraan yi nga xam ne ñoo ubbi njàngum alxuraan mi ñooy ñëpp wutalañ leen ndékki loo xam ne maanaam la war ci ñoom def nañ ko ba ma sëkk bu dee gan yi nga xam ne tamit ñoo jógee fu sori fu fasante ko tamit ñoom it waajal leen ndékki loo xam ne bu ñëwee ndax nit ki day jógee barab bu soree bu fasante bu ñëwee dañ koy teeru teral ko maanaam yaatal ko maanaam ubbil ko maanaam waxtaan ak moom fa mu jógee ak dalal ko ba nga xam ne waxtaan ak moom li waral bis bi yooyu yëpp bu paree ñu doog ko dugal ci mbaar mi fi ñu toll nii ne tamit mooy ci wàllu xéewalu añ bi moo war a jot nii ci ci nga gis nii maanaam ñu commencé séddale fi ñu toll nii kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo suñu jëwriñ ci liggéey bi dañoo sàkku ndab yoo xam ne yu méngoo ak ñoom la kilifa gu nekk ñu sàkku bool boo xam ne ndab yoo xam ne maanaam dana méngoo ñoom yóbbulee ko seen daara ñi nga xam ne mooy suñuy yoo xam ne moom du jot ñu koy tudd suñu waxee noonu junj ko rek ñu bari dañ xam ñooñu ñan la waaye waajal leen ndab yoo xam ne moom dañuy dem ba seen daara yi ne fa la ñu nekk daara alxuraan ñëbbu leen seen i berne kenn ku ne moom mooy wër daara yi nga xam ne mooy goo xam ne moom la àndal ci ci xéewal yi nga xam ne mooy añ bi su ko defee tamit yi nga xam ne yeneen la yoo xam ne yu sedd la ak yeneen yoo xam ne ay furwi yoo xam ne maanaam jataay boobu dana ko laaj ci jataayu murit kenn ku nekk dañ la yóbbul la nga xam ne méngoo naag loola ñu ñu ñu yóbbulil ko fa loolu daal fi mu doon nii ci waajtaay bi ne gis nga ko ni xéwal yi yaatu na loolu wax di yàlla moom wax di yàlla murit moom ñëwee kenn xam ne xam na ko moom mooy liggéeyam te loolu maanaam saa bu nekk rawatina ñi nga xam ne ñooy jàng alxuraan xasida kon loolu moom mën na sëkk wax di yàlla dara desu ci jërëjëf sëñ Modou kon mu mel ni lépp leer na rek ah, ñu doon ànd ak fii ci waaj bi sëñ Modou Ndiaye mi jiite restauration bi di ko sant ak jaajëfal mu mel ni kon waajal nañ lépp ci wàllu xewal yi ba nga xam ne même ko waxee xewal yi dañuy ragal mu des waaye manqué moom du ko def abdal xuyura qaada surura risi rajai saba saqima nafana lima qaada alxadima ila najai غرفك قبلا قد بسفت لا فدر ولا والنفو جائي جالي نوايب مبلي جائب نبي مسجد المكة طالب المكة اللي سيدان ci ànd ak waa daayira mooy bu naafi fii ci Touba mbaarum Daaru Xudes ñuy amal sunu fukkeelu bésu xasida ak ñaar tey di yemook alxames le 22 ci mois d'août di yemook ci weeru tabaski ñaar fukki fan ñuy ànd ci suba gi ba léegi ñu ngi gisee ci juróomi ànd ak ci liggéey bi toppal mboolem jëwriñu commission yëpp tey ji nag ñu agsi ci sëriñ Cheikh Dieng mi si mooy jëwriñu daayira mooy bu naafe kon ñu maasi ànd sëriñ Cheikh mu leeral ñu dëgg-dëgg daayira mooy bu naafe ana lan moo ko tax a jóg ak euh, lan mooy sabab bi ak ci man at la sosu ak it fan la liggéey bi tollu sëñ Cheikh. salaamaaleykum wa di nuyu mbokki taalibe yi di baax di amali kàddu yi di sant rek bis moom yaakaar naa ne tey ji bisu mbégte la ndax liñ doon xaar ay at eh, wala boog ay weer ñëw tey bañ ne tey la bis surna bi loolu moom jàpp naa ne dañ ci sant sëñ Tuubaa bu waax li ci gën a yéeme nag mooy bis bi tey jii bisub nawet la ba nu yowoo ba tey mu ngi ci ab taw waaye mbokki taalibe yi nga xam ne seqal liggéey bi xamewuñ ko ak bis tawut loolu nag wax dëgg yàlla doon na loo xam ne xam nañ na ak yitte wala ak ñor ba tax na ñoo ngi ciy sant bu baax waaye di ñaan lépp luñ fi jàng ci ay xasiida wala ñu wàccee ko fi tey ci ay kaamil yàlla na ko sa borom sotti ay xéewal yu daj kapp réew mi li ci des xam nga ne fi mu ne dem nañ bëccëg gi jot na incha allahu rabbi ci kanam ñi ngi séentu Cheikh Amadou Basir mi nga xam ne moo yor baatu yoon wi moom sëñ Abdou Khadir ñi ngi séentu it ci ngoon gi sëñ Mamoon Mbàkke mu sëñ Fallu bu nee ba wax war a ñaan sëñ Amsatu Mbàkke mu sëñ Soy moo ñëw ñaanal mbooloo mi loolu des na ci programme yi seen kanam incha allah bis bi nañ la ko waxee woon yaakaar naa ku fi teew tey xam nga ne noonu rek la demee 7 heures suba ba 23 heures njàng mi dara du ko dog lu ak julli bu weesoo loolu dañuy wéyal moo xam rajas la wala kuréel loolu rek moom mooy mooy mooy bis bi lool yi nag mooy defin wi nga xam ne ba tey jii ñu toll ci 2019 di fukki at ak ñaar noonu la bi doxee waaye nu ànd ko kuréel yu takku nag ci liggéey bi muy kuréel yi mooy bu naaf yi nga xam ne war naa toll ci juróom fukki kuréel ak juróom benn ñoom ñëpp ñu seqal liggéey bii xañ na nag jamono ji ak doxalin wi lu bare bari ñu bari ay liggéey jàmbur lañu yor mooy tax bu ñu xëyee duñ mën daal teel a ñëw waaye yaakaar naa ci kanam tuuti nam daan demee rek lay demee danaa gi ci barab bi kenn du fi xaj ngir mbooloo waaye loolu lépp leen tax a jóg mooy liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey biir yàlla bu ñu gis suñu bopp waaye yàlla nañ ci dajee ak ngërëmul sëriñ bi li nga xamante ne bii mooy raison yi wax dëgg yàlla ñu leen di jaajëfal bu baax ndax bañu xëyee ba léegi ñenn ñu ñekk ñi ngi jóge ci ay raison yi di teew fii ci liggéey bi loolee jàpp naa ne lu am solo la ba tax na daal loo ngi sant mboolem comité bi nga xam ne moo yor liggéey bi commission yëpp kenn ku ci la lamp la ko war ci liggéey bi def na ko kon ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga àndal liggéey bi di sa ñas mi di euh, Touba Belel TV wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci njëlbeenug liggéey bi ak biir liggéey bi ah ba ci mujjantal gi lépp ñu ngi ko ànd ak ñun kon nag seen liggéey bi yàlla na ko suñu borom barkeel te taw defal nañ ci tawféex ba mu doon ay télévision yu mag incha allah ñu ngi sant daal di gërëm di lu bu baax nag waaye culturel ndax mel na ne bi ñu xëyee lu aj ci wàllu xasida yi boobu ba léegi noppaluwuñ ñu yor seen i jukki di séddale ñu yor kaamil yi di def noona te loolu rek mooy liggéey bi kon ñoom it ngi leen di jaajëfal di jaajëfal daal ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi moom lépp taaru na yàlla na bi jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh Dieng kon ñu ngi sant bu baax te ko gëm di ko liggéey bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara bu baax a baax a baax mu mel ni ñoo ngi fi ci dëkk bu sell bii di Touba ci pencum Cheikh Mouhamadou Moustapha muy Daarul Xudoos fii ci mbaar mi ñu fi ànd ak euh, suñ wa daayira mbokki daayira Mawahibou Nafi di daayira bi lëkkale mboolem kuréel a xasida yi nekk ci biir dëkk bi di Touba ak li ko war mu war a toll ci juróom fukki kuréel ak lu topp ñuy amal seen douzième édition bu bi si xasida bu Touba tey jii ji di alxames le 22 août fii ci mbaarum Daara Khoudoss euh, ñuy ni ni nga ko tàmbali nag liggéey bi ci 8h di ànd ak mboolem kuréel yi ne ci biir dëkk bi lépp ak i ko wër ak ci teewaay sëñ Amsatu moom sëriñ Chouaïbou ak sëñ Moussa am sëñ Mahmadan ak mboolem kilifa yu bëree bëree bëri ak mboolem duruskati xasida yi ak kuréel yi rawatina mboolem yi jàng xasida ci bépp fànn ñu ngi ànd ak yéen depuis 8 ba léegi. kon nag ñu fas yéene ànd demal leen ci dugg ci biir demal leen ci mbooleem commission yi nga xam ne si ñoo ngànk liggéey bi ak lenn ci kilifa yi